Assalamualaikum wa wabarakatuh. barakaatu mbokk yi maa leen nuyu di leen ziar bu baax eh, di leen wax ne tey moom dañoo ñëw indi leen benn secret bu am solo lool secret bi dox si wàllu mahabba ndax maa leen ko digoon eh, te sama yitte mooy diggante yëpp am jàmm am salaam am toofeex am bànneex te su ma sañoon benn jigéen dootu jooyati ci àddina bi su ma sañoon itam benn góor du am ay jafe-jafe ak soxnaam wala ak ki muy nekkal lu demee noonu wa jàmm ak salam dal motax bëgg mu am dal motax ñuy jëm suñ kim katan di def lepp luñu mëna inshallah waaw tey nag secret bi ma leen andil comme ni nga ko ni euh damay day nek vidéo bu gaaw rek euh, muy ayat kursi yu yakana xam ngeen ko mi allah la ilaha illa huwa hayul qayyum bam mu euh ni ngeen koy defee nu simple la rek yow mi nga xamne da nga bëgg euh, nek ak nit te bañoko ko bëgg ko kenn wala bëgg perte. moo xam mu nekk sa jëkkër wala sa jabar nga ragal ne nit ñi mën nañ koo ñëw benn bis jël ko say jël ko sa loxo wala ngay seey moom di ragal ne ëllëg mën naa kii mu génn say loxo même bu génnee sa loxo am naa yaqin bu baax ne dina ñëwaat bu soobee Yàlla suñu borom mbir mi yomb na mooy da jël ngeen bind ayaat kursi muy allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum ñaari ard moo fi nekk premier ard bi nekk si ko muy wa maa ardi dégg nga wala nawmun lahu maa fi samawaati wa maa boobu ngay yaatal yow sa tur mooy nekk si premier arde bi ak sa tur yaay nga pare nga tëj arde boobu nga ñëwaat tam ba fii wa si'a kursiyyuhu as-samaawaati wal ard arde boobu tam nga yaatal ko bind foofu noonu yow sa sa keneen ki nga bëgg ki nga bëgg nekkal te bañ koo perte nga bind turam ak turu yaayam nga tëj art nga tëj art boobu noonu daat bi soo paree nga continuer aay ba mu jeex nga tëj ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim comme ni ma ko bindee soo paree nag nga ëw ko nga takku ko wallaahi def nañ ko defal ko ay nit te gis nañ si ay kon yéen ñu koy def itam yal na yàlla defal tawféex ngeen gisee ay résultats bu soobee yàlla muy secret bu gàtt bu am solo lool bi ngeen bi ngeen bi ngeen bi ngeen xamee ne wax dëgg neex yàlla man moom mënu maa xëy te du ma leen jox euh, secret wallaahi moo tax ñu def ko rek kon bukra incha allah salaamaaleykum